dans la délégation sénégalaise. Du nuyu Sénégal je tiens d'abord à dire à tout le monde que ñàkk xam Il y a le développement humain et la réussite. dis que qui va diriger demain le Sénégal. alaikum, alaikum, ñi C'est une télévision précise am colloque ak seen site internet www Nous thiès del com ak yenté émission sur le plateau de la campagne comme nous avons ko baxo di def rek à chaque fois donc dañuy recevoir donc les acteurs politiques au niveau de Thiès pour les besoins de la campagne nous leen une ci précise ñu waxtaan euh, parce que Sénégal ñu ñëpp ñoko bok comme ça nous ñi sétane mëna nous xam wax deug yalla ñi bëgg euh, ñu lan la ñuy proposer askan wi tey nag euh, ñoo ay invité yoo xam ni comme ni ma ko waxee sànq ay ndaw lañu dëkk biir Thiès di fi yëngu ci wàllu politique ñëw nag seet suñu ki ma ci njëkk di ko jox kàddu gi mooy ki féeti sama sama sama ndeyjoor di ko jox kàddu gi pour que mu présenté wu. merci beaucoup mon frère Abdoulaye Mbengue pour les présentations c'est madame Seck Issa enseignante de formation bokk ci la fédération des enseignants et éducateurs pour la République dana mooy faire sawar trop nak tok fi tay ci plateau bi nga ma invité di nuyu téléspectateurs prestige ak internautes yi di walé en même temps Sénégal yëpp. merci beaucoup Issa ce Gueye euh, donc comme nim ko waxee non la euh, ki mu jàkkaar lool ma jox ko cadre gi tam mu présenté wu. Euh, El Hadj Kabou Gueye ñu gën ma xam ci Nene euh ma bok parti bok gis-gis ñu dok ci mouvance IDI 2019 ñu ñëw fi ma kontaan trop ci ñëw ci sen plateau bi. parce que tele bi yàgg naa ko dégg di gis sama waa kër tamit di ko seetaan kon tey su ma amee occasion toog ci dinaa am mbégte bu baax di nuyu nag seen téléspectateur yëpp waaw di rafetlu débat bi yaakaar naa ni buñ ci jógee daal. Euh, <laughs> c'est toujours le Sénégal qui gagne euh, galanterie oblige je vais la parole d'abord à Issa nga xam ne dafa bokk wax na ko sànq dafa bokk ci euh, coalition Macky président tey jii Issa lan nga jàpp nii foofu la Sénégal war a pour mën est-ce que ce président am na bilan boo xam ne Sénégal nañ ci wékku wala Thiès waaye mën nañ ci wékku pour que pour pour vraiment éliraat euh, président Macky Sall. mu am deuxième waaw Mbengue damay sawar trop tontu ci sa question mi mais bala may tontu rek danga may may ma ma rek fédération des enseignants et éducateurs pour la république. kagn la juddu les missions qui les attendent sur le terrain et tout. fédération bi dafa ëmb kat ak ndonga daara yi ak jàngalekatu métier yi nek ci Sénégal yépp nous présents dans les 30 départements sur les 45 au Sénégal. Donc on a sillonné un peu partout le Sénégal pour la mise en place de ces fédérations. Nous sommes tous les petits départements sénégalais qui ont travaillent bu am solo, di xamal nit ñi li les réalisations du président Macky Sall maanaam di def portage yu nga Macky Sall euh, ligue et mandaam bi nga xamni mandat 7 ans la donc enseignants yooyu yëpp ñu leen di dello ñukal ñom ñi nga xamanteni c'est grâce à eux bok ci pa parti population bu bari umpale won nañu président Macky Sall lan la def ci Sénégal parce que kat yi bari nañ ku nekk ngi nan Macky Sall deful dara Sénégal wante ñoñu tay dañu jël sen bâton de pèlerin sillonner le Sénégal leeralal nit ñi nga xam ne xañ na amon nañ ay leunt leunt ci toutes les réalisations faites depuis bu mu fi togué ak léegi lolu rek doy bilan ci réalisation yooyu la ñuy tënku pour war mun a wax sénégalais yi que ni war nañu mu teel le président Macky Sall. Mm-hmm. lan moo tax ma ciy tënku parce que dama lay wax ni la secteur boo jël rek am nga. ay ay jalons yu important yoo xam ne mag Sall teg na ko fa su ma jëlee éducation bi nga xam ne falaay laay yëngatu mun naa wax foofu que ni joxe ay exemple parmi tant d'autres nag. parce que bëri nañ mun naa ni boo demee campus universitaire lii yi ñu ngi passé de 5000 à 10 000 lii donc loolu loo teg baaraam boo demee di ko gis. boo demee foofu bourse étudiants yi yokku nañu. boo c'est un ticket restaurant wàññeeku donc loolu c'est des faits yo xamné mi ngi fi ñun concernant ñun enseignants Macky Sall bi mu en 2013 li mu njëkk def moy wañé le taxe sur les revenus donc mu nekk retombé bo xamné ñun bénéficier wo nañ ci intrant de première qualité bi nga xamné moy l'enseignant aussi Macky Sall mettre na len dans de très bonnes conditions actes yeeg avancement yépp ñi ngi dem donc loolu lu ñu mën a baram la dans le domaine de l'éducation waxaalewu ma nag université yi nga xamné ne nekk ni ñi ngi ni gàdd biir Sénégal pour permettre aux étudiants de loger dans des conditions acceptables yu permettent permettre entre autres domaine beau, non la. domaine la président a un bilan positif. positif très positif. très bien donc président est tout beau tout joli. Hein, il a fait un bon bilan. tout à fait. Hein, il a fait un bon bilan.

mu jël ci ba fàcc doomu xale doomu jàmbur tax tey jii mu tëj naan leen léegi pour defal xale yi dinaa yokk seen bourse yi dinaa wàññi seen ticket yu xoolal gis nga. bu la neexee nag pour defal mais c'est des faits yoo xam ne c'est réel mi ngi nii tege. étudiants yi ñu ngi jot seen bourse à temps le du mois lañ leen di fay seen bourse le 25 du mois étudiants yi dem fayeeku seen bourse ñun ñu ngi fayeeku suñu salaire comme il le faut revendication syndicat buy juddou c'est pour des revendications syndicat bo guiss Sénégal il a des revendications te kat bi tamit bëggul rek nek ci ben status quo bo xamanteni ni ni avancement sinon comme def syndicat yi lu ñuy jariñ au Sénégal uh-huh. allez-y yaa am temps de parole c'est nga mm-hmm. Mm-hmm. président bi ñu ñuy tegal nii di ko ak diko défal xam nga yaa ngi naan sax mu ko défal ba mu rafét teg ko waaw xam nga wa xam nga loolu la def seen président bi mm-hmm. di nit ko xam dafa télé amna nak ay ambitions mais tey jii su la fekkoon tay ci sa liggéey bi nga nek ma am ci ay ambition bëgg def xëy dina ko def mais na ma koy defee du baax. mais am na lu mu def quand même. motax man la motax man la am na lu mu def mais na muy defee. parce que dafa mënul. tey jii suma joxon tay sa bâtiment bi dina ko tabax de xëy jox ma ciment ak suuf mais ku fi rom dina ni càmm ko def li lool moy Macky Sall. ni muy jëlee de kon neex na. xàll euh, euh, tali yi ndox mi xel ci village yi électrification bi nekk ci village yi.

bi France bi ñëwee xam nga ñu wax da ngeen di participer à hauteur de 32 milliards dem ba ci yàgg ñun ñu déedéet da participer à hauteur de 50 milliards nous ñu indi 100 milliards Et autoroute bi Bara Tall bi mu 50 milliards la mën a jar suñu autoroute ñun ñoo ko autofinancé ba pare jox ko tubaab bi mu pendant 30 ans mhm. bërki démb bu mu ñëw de na yow pour def ay inauguration pour

wax sénégalais yi bu paré ci premier mandat bi deuxième mandat bi mi am. mu wax sénégalais fan la leen bëgg mais da ngeen jël da ngeen jël rek. allez-y mec na wax wax programme candidat lañ koy xaar je yi lañ lay xaar sa candidat la war a def bu toogee allez-y dek noonu la ñuy xaar. ci boobu benn ci autoroute bi bu ma neexee mu ñëwaat ci programme loyer yi mu naan da koy wàññi. musoo gis dans le monde dans aucun pays du monde. Ben loi bu ñu génne ko muy indé ay xiiroog ngaayo ci population yi. amul programme tas rapport dafa non non celui là celui là lay ni baaxul ba pare rapport de bon voisinage nit Nous di demante tribunal di demante ah. musul am té amna ñu ko doon appliquer nu simple monsieur mbeng nu simple simple simple sax no xamante ne tey jii loi bi day état gagné ci yow bi nga gagné kii bi gagné si loueur mais ñoom seen télé moo tax dañoo ñëw rek sànni ko noonu. pour sénégalais yi. waxal ci wax ji. <laughs> waxal foofu lañ leen di xaar. waxal loolu la programme bu leer teg ko. waaw dañuy ñëw ci bonne gouvernance d'abord. li ngeen njëkk a xañ Sénégalais gouvernance yéen da ngeen xam luy bonne gouvernance. bonne gouvernance yéen trois communes di bu leen ko fàttee. Issaoui koy bàyyi mu développé après ma joxal la parole dama ma joxal la parole ah s'il te plaît ah. Ah,

ñun loolu bonne gouvernance boobu moom la ñu indiwaat mooy lam doon waxee slogan ba mu doon wax sénégalais yi te tey ji mënu ko teggee teg ko fële gouvernance sobre et vertueuse xam nga léegi déggatoo ñu wax ko loolu rek lañ vraiment waxal sa ma la li ma lay wax nii kay loolu man la loolu ñun lañ ñu indiwaat jox ak ak yelleef doomu aadama yi ñu jox ko nit ñi waaye jàpp tërit gi rek ku la nar a déranger nga jàpp tërit di def ay manipulation mais manipulation yooyu mu doon def nag tey ji moo këpp ci kaw lëndul wax ah, par rapport ak candidat moom. Hmm? candidat moom daf nay critique par rapport ak seen bilan mais surtout wax na aussi quelque encore relever quelques points yoo xam surtout je note surtout sur la bonne gouvernance sur la justice ak yu demee noonu yoo xam ni candidat am jàpp na ni yooyu dafa sooxe ci seen programme te ñoom bu ñu ñëwee dañ ciy des solutions. ñoom dañuy fàttali que Macky Sall dafa def.

lu tax tey jii muy gudd naa daata ka naa daata la. Ah, merci ci parole ak kii la justice elle est là pour tout monde et dafa ba pare dafa impartial. faru la kenn. Mm-hmm. kenn ah, loolu nga jàpp loolu parce que loolu moo am. au Sénégal loolu la ah Macky Sall xam nga yéen loolu ay argument la pour. na saxal xelu nit ñi loolu ay argument la pour réeral nit ñi. mais ku nekk xam na ne na ne au Sénégal ku fi def lu jaar justice jàpp la muy man muy keneen ak keneen justice da lay jàpp def ay enquête am seen seen candidat ngi may ma an. ku ko dugaloon kaso. an di kudd. ku ko dugaloon kaso. pardon est-ce que Macky Sall la. an di kudd mi yéen yéen. dugal ko kaso. an di kudd. OFNAC waxuma la daf ko épinglé de. mais laisse-moi terminer. mais mais deux plus de l'OFNAC waaw juste deux secondes. deux plus de l'OFNAC. dafa bind lettre ni nañ ko destituer. mais ah, mon frère xam nga ñi lan moo leen tiital waaw léegi kooku kooku bilan mo Sall moo leen bi mooy lan bu tëddoon di nelaw bañ a campagne sax. Mhm. il va sortir au premier tour avec un taux bu nga xam ne sénégalais yi duñ ko sax mos a imaginer. Ah. parce que lu mu liggéey moo tax mais programme yaa ngi nii nga teg sa bët ana PDC ana PUMA ana CMU la couverture c'est bi mooy couverture maladie universelle ana égalité de chance yi mu jox aux handicapés mais loolu bu tëddoon nelaw sax day fait au premier tour parce que liggéey na au Sénégal lu nga xam ne mu ni fàng kenn mais est-ce que vous nga ce candidat mën gagner le président Idriss Seck nga xam ni traditionnellement moo yàgg gagné Thiès quand même. mais Thiès du Sénégal. dégg da ngay fàtte loolu mais Thiès du Sénégal Thiès dafa bokk ci Sénégal mais du ah, Sénégal te man yaakaar naa pour une première la tendance va se renverser pour une première. waaw ah. waaw xanaa président Macky Sall jël jël ndam li Thiès noonu lay renversé. moom mu ngi dëkk zone nord man ma dëkk zone nord. gis nga euh, Thiès. président Macky Sall nee na amul candidat. nee na amul. adversaire adversaire waaw waaw waaw gis nga parce que loolu. gis nga boo xoolee c'est le même discours que Wade doon jàpp en 2012. parce que xam nga lu Macky ñi ko wër tey ñoo waroon Wade en 2012 ay ñoom Serigne Mbacké Ndiaye ay ñoom Farba Senghor yooyu lañ koy jël di ko defloo ci bop sénégalais yi mais mom dofa li taxone muy def discours ba ci yag mo daw tok jël tablette am di xol xamna ni tay ji jommi na. jël tablette am di xol il faut mu xol marée humaine bi nekk Thiès bi ko accueillir c'est très normal parce que yéen yéen a doon wax naan yéen nga ngi doon wax naan marée orange mo am mais barki démb dimanche promenade Thiès waa yow Mbengue xana bo demul tamit gis na les images les images parlent d'elles-mêmes hein? ngeen xam ne kon Thiès yéen kese momu len ko. Thiès momu len ko de bàyyi leen xel ci loolu. zone nord la dëkk man ma dëkk zone nord gis nga zone nord tay ji buñ ñu la commune de la zone nord de Thiès moy la commune la plus industrialisée du Sénégal suma ma neexee ma wax il suffisait juste ñu tek ci ben coup de pouce zone nord ni fër ba yóbbaale Thiès Sénégal il y euh, chemin de fer amnañ euh, sen Iran mu ngi ni amnañ sen bus gis nga yoyu bu maki won dina ko de manière à ce que waxuma Thiès de mais de ma rek gis nga yenen région dañuy daw di wutsi zone nord su ko dinañ fi ah yore commune yi. li mu fi fekk laa la wax. il faut commencer pour ngeen wax war a mën a wax ni kat Macky Sall euh, Thiès Thiès la commune industrielle la. mais nañu commencer yéen yéen a commune bi non nañu commencer. ñun bu ñu yoree. tey chemin de fer bi tey jii mu taxaw naan. gëj ngeen dégg pay point moom ngeen namm. ngeen jaay ko en 2007. dugal ko dëgg la ñun dégg ñun waaj a terrasse suñu développement def ko ay cité balnéaire. loolu mu ngi fii gratuitement moom. ñun du pay point ñu nelaw ñun du puy lañ nam ñu ngi dégg pipon tous les jours daa fàttali zircon bi mu jël diko jox tuba bi ci raay bi lay jaar di ñu puy que quand même sànq euh, tudd na ko yow aussi tudd nga ko mooy coalition yi am de part et d'autre yéen am ngeen seen coalition. ni am nañ seen coalition. yow est-ce que japp nga coalition parce que quand même il faut noter que les recalés ni ci bëri ñu ngi ci borbelé est-ce que yéen ni ngeen ni ngeen. frustré ñoo dem non ah, ma ay frustré ñoo dem noonu. Mm-hmm. bëggoon nañoo dem mënuñoo dem léegi nag il faut ñu wut ci kuñ la nga mm-hmm. mais ils sont insignifiants. tekkiwuñu dara démb ak tey te le 24. Mhm. au soir du 24 ngay xam ne mhm. tekkiwuñu dara démb ak tey au soir du 24. am na nit ñi léppay leer loolu moo créé situation mais mais lan nga comme aux législatives wala lu ko ëpp picc mu jóg ni président laa bëgg a doon loolu fan lay tegee ñoo xam ne tojuñu fenn jaaruñu fenn ay manquant yoo xamante ni fii la ñuy taxaw doonuñu fi ministre ñu fi député doonuñu fi conseiller ñu fi euh, président assemblée ñooñu dañoo bëgg a jël Sénégal. étape la yëpp nga sote ko lan nga glané ci expérience lan nga am comme expérience picc ci mu jog ni dama bëgg nek président ñoo yay teg parrainage pour ségg gis nga buñu séggé ñi mëna a dem rek ka dem ñi mënul dem toog point final mais c'est ça le problème te parrainage bi bu amul won tay li li ñu naan ni vote bi dina gaaw dina yomb ce sera très difficile pour tout le monde hein parce que di nga gis ñoo xamante ni représenter sax 1 de la population. ñu defal leen yàq ci ñoom ay milliards yu dul jeex pour pour pour élection yi. mais loolu yëpp c' pour rationaliser li nga xamante ni moo war a dugg ci élection yi. loolu c' important. dëkk bu bëgg développer, wu il faut nga teg ay jalons yuy tax nga développé wu. te man parrainage bi je suis entièrement en phase pour ñi nga xamante ni matuñu mbuus te dañuy ñàkk mbuus ñu tegee ne ñi nga xam ne nag seen bopp réunir nañ li critères yi nga xamante ni moo doon les critères de base pour dem mais ñu dem ku nek tante chacun ku nek wax sa programme ku nek défendre sa bilan su boba dinañ xam kii ki mais duñu bayyi ay 47 listes 50 listes ku ne ñëw ni da nga bëgg a da nga bëgg a Sénégal mais fu muy tegee quand même qu'on se dise la vérité. alliés yi ñëw yépp ci ginnaaw Idi amu ci benn bo nga xamanteni da ngay ñëw say responsable nan dewuma. alliés yoo xamni ne sax barki dem nañu ko ah. gisoo kenn yow bërki démb bi Bamba Fall taxaw la preuve bi Bamba Fall taxaw naan am na ay nit ñu ñu doon wax nañ dem fii ay nit ba muy lim ay nit ba ñu indi gis ngeen ful bi ni mu def ñëpp yuuxu ni i tat te ñoom ko tewoon nañ ko pour mu ñëw ci ñoom mais ay nitam ñoo ko ci bàyyiwul mu xam ne su demee tamit seng la toogoog muy wax Bamba rek kay dem Bamba doful mu toogaat ñii daal dofuñu xam nga ma la gis nga tey jii tey jii tey jii matu leen candidat waaw ñun matu waaw amul problème waaw matuñu candidat waaye am nañ tey bu mat candidat bu nga xamante ne tey jii seen jeu boobu ngeen doon def ñoo xam nga ñoom ñoom ci yooyu la ñuy joué ci ay jeu ah, voilà seen jeu def tey moo këpp ci ñoom yàlla ñëw versé lépp président Idrissa te ñoom xam nañ xam nañ fi mu toll nii Macky du bluff

en quoi il est là encore indécis ken xamagul fan la jëm mais li ñu constaté moy que gis nañu que en il a incité à certaines formes de j'allais dire de violence yo xamni mi ngi koy mi lan nga lan nga coalition par rapport à la euh, présence au maître Wadbi bi man pour maître Wadbi, je dama koy jox tout le respect qu'il mérite parce que nek na fi président de la république liggéey na fi paré na jox na son excellence le président Macky Sall mu le Sénégal sur les rails

muy baña a waxtaan ak mom bu fekkee c'est le cadre de la de la paix rek lañuy ñuy waxtaan rek c'est le bienvenu parce que Sénégal mom jàmm rek mo fi xat te jàmm rek mo fi am mom mom bu inciter nit ñi à la violence tamit nit ñi dofuñu xamé nañ ay mag jëm ñoo fi nekk képp ku nga xamné am nga âge voter ça veut dire que ni mature nga donc limuy wax war nga ko mëna ségg segg seggaat ko xol li ci bax nga jël li nga xamné ne arrangé wu la nga teg mag nak bour la dañ ko koy nangul mag bour la mag luma def yalla bal ko. merci beaucoup mag bour la donc yow gis nañu toujours comme c'est la même question mais yéen particulièrement li ma leen ci li ma ci la ciy tagal mooy que quand même euh iri mi ngi doon espérer que paa bi ànd ak moom. Euh, Sonko aussi mi espéré espérer pas bi finalement donc euh, qu'est-ce que cela vous fait qu'est-ce que cela vous fait présentement euh, présence pas parce que bon man man personnellement man bokk gis-gis laa bokk. Mhm. te ku ne xam nga relation président Pape Diop. ak Wad. Wade donc ñun ba jusqu'à présent ñu ngi espérer que ni Ablaye Wade bis bu demee bu fekkee day joxe consigne de vote je pense que en la faveur de Idrissa parce que nous ngi naan mu ngi wax

mais il juste pour vous dire simplement que pour relancer que débat c'est un débat très engagé c'est un débat très passionné. Mon équipe qui ki nga euh, ni madame madame aussi euh, Néné euh, parti 2019. vraiment parce que Sénégal ñun ñëpp parce que c'est une autre question. Moi, violence nous quand même campagne on a vu que les discours sont un peu chauds mu am sax ay empoignade un affrontement physique est-ce que vraiment euh, ragalu leen que élection perturbation par rapport à ça Mm-hmm. sa xel mm-hmm. na xelu sénégalais yëpp dal mm-hmm. élection yi du am benn perturbation ndax sénégalais yi mat nañ mat boo xamante nii ku xëy voté boo defee l'essentiel ba pare ñibbi sa kër déglu résultat yi 18 président Macky Sall gagné au la main leneen li nag mooy il faut ñu masaw parce que ñun ñëpp Sénégal lañ dëkk te au soir du 24 ku tukkiwul Sénégal ngay fanaan donc ñun ñëpp ñoo bokk réew mi kenn mënu ko xar ñaar dañuy masaw ñi nga xamante nii peut-être ñàkk nañ ci bakkan peut-être gaañu nañ ci wala ñak nañ ci seen ay matériel lolu yépp c'est regrettable vraiment suñu sañoon nit ñi dinañ battre campagne ñu dem voter ji ci jàmm ak salaam benn bakan bañ lolu mom wax deug yalla kenn duko ko rafetlu te ñi ñaan ñëpp nak mm-hmm. vraiment ñu dal parce que dal rek moo ñu siy génne euh, donc sur la violence ça ne vous inquiète pas yéen de votre côté ñun rafetlu wuñ ko te ñu ngi massawu fa deug yalla famille yi nga xamanteni ñak nañ ci seen doom wala affaire mais buñu xolé violence bi yëpp ci seen camp la jógee ñom dafal ndànk rek ñom ñoo am police am gendarmerie am armée tourner recruter les marrons du feu ñom rek ñoko fi am te violence bi ñew yépp ci les marrons du feu la dem ñi ci dé ci marrons du feu bi la jógee xalé yu sonk yi ñu teg ah, kon kon kon ñi ñuy jàpp ñëpp désarmé leen ñu yoron njaga njaayu arme blanche ñooñu ay marrons du feu lañ yow tamit nit ñaa ngi déglu radio xam nañ la xaw ñu teg seen bop barki dembo fatik marrons du feu yee ko def donc ñom ko am violence ñoom nga joteel ku tiit nag moom li ñu naan borom càq du xeex ak borom baatu neen mooy ñoom. Ah, waaw ñun ñoom ñun. ñun dañ leen mais ñoom ñoo. borom càq pour mais pour xam nga loolu gis nga loolu. ba ko ministre bi waxee man nee naa ba ko ministre bi waxee nekk ba ko ministre bi waxee dañ koy destituer jàpp ko jël ñu ko euh, ma nga tàggoo euh, soxna Issa. man de Mbengue li may tàggoo mooy di ñaan askanu Sénégal bi yépp ñu votel le président Macky Sall xam nga lutax ma len di ñaan ñu votel ko parce que def na fi lo xamni beuta ci tégué. wuute nak ñi nga xamanténi dañuy digaté rek man je préfère la continuité à la rupture parce que kou la teg sur la voie de l'émergence def nga gis bu la né ëlëk dina la defal li war nga ko mëna gëm te c'est le meilleur candidat di ñaan nak sénégalais yépp le jour J ñu voté ji ci jamm, ñibi ci jamm, que kenn baña répondre à la provocation parce que ndam li leer na ba paré au soir du 24 rek la ñuy xaar incha hmm, di remercier premier tour ah, ah. avec plus de 75 ah, donc comme euh, donne euh, madame Sek euh, né Issa Gueye ma ko mo né ko représenté coalition Maki la fédération, de, la fédération faire d'abord des enseignants et des éducateurs de, pour la République, mais aussi très bien ben, toogal aussi ben non beaucoup Yaka, fi coalition Maki 2019 c'est bien ça alors donc euh, ma euh, euh, Néné Néné donc li wax amul 000 employés

dig daje beneen yoon ci émission plateau de la campagne merci beaucoup jërë ngeen dans la délégation sénégalaise. di nuyu waa Sénégal yëpp di leen je tiens d'abord à dire à tout le monde que ñàkk xam baaxul. il y a le développement humain et la Je réussite. dis que tu va diriger demain le Sénégal.